xamne xam ne la euh, dañ ko doon wax depuis ay 2000 mille deux la ñu wax ne la dugg Sénégal maanaam euh, ndaw yi commencé di feeñ bu baax te loolu euh, dëkk bu ne ci aduna bi daanaka ni ndaw yi di feeñanoo jaar tout dépend nag nan nga koy traité jaar na ci ay pays Europe jaar na ay pays Asia asiatique daanaka booy xool Sénégal amoon na jamono diñ euh, doon wax ay ay ay ŋas ay rougeole feebar yooyu nga wax ne doon xale yi ba nga xam ne mënuñu woon jàll cinq ans juróomi at loolu dafa wàññi woon bu baax euh, espérance de vie ba pare nag euh, doon def ne jigéen ñi dañ daan ëmb ëmb yu bari loolu yëpp bi médecine bi ñëwee am progrès dafa amélioré maanaam combattre nañ feebar yooyu ba pare jigéen ñi wàññi seen tuuti seen seen njóoru ak li ñuy wax aussi seen mortalité waaye ni ñu daan loroo ci bu ñuy am doom wàññeeku feebar yi daan lor yu bari aussi di wàññi askan wi aussi yooyu yëpp ñu xaw ko fànn loolu day indi population bi dafay yokk te ni muy yokkoo comme jur bi njurum jigéen ñi wàññeekul numéro mu war a wàññeekoo dafay andi forte présence des jeunes loolu mi ngi commencé bu ñu koy xool bi ci euh, jàngat ci année 2000 mooy bi Abdoulaye Wade doon ñew ci pouvoir bi boo demee boo seetee sax ñim mu politique moy mooy ku fa am liggéey ku fa am liggéey non la doon politique bobul phénomène bi mo doon feeñ bayi wuñ ci won xel nak mu ñu dem ak mom mu yok muy dem ak mom muy yokk jeunes di ñëw muy yokk. yokk boobu ñun ràññee woon nañ ko bi ñu def plan Sénégal émergent bi nga xam ne président de la République wax nañu ñu tabax plan Sénégal émergent xool problème yi fan la nekk dëgg ñu xool nan lañ koy résoudre boo demee ubbi plan Sénégal émergent di nga gis ne euh, nekk na ci euh, ponk yi nga xam ne ëpp solo yoo xam ne dañ ko tegoon ñu koy tuddee dividende démographique parce que Sénégal dafa toll ci phase boo xam ne ci jamono boo xam ne euh, nekki ñu ndaw yi dafay yokk ci biir ci biir réew mi loolu 2012 2013 bi ñuy formulé taxoon nga gis ay programme yu bari yoo xam ne président digle woon na ko ñu dexuñ ko ci te dara taxu la woon jóg lu may régler problème emploi des jeunes malheureusement nag euh, ni muy tëddee ak ni muy demee euh, tax na ba euh, du sax duñu sax dafa yéex waaye li muy jur ci xeetu emploi ak je yi ni ñuy di laaj liggéey lool moy andi pression euh aussi euh, ñi soxla liggéey même boy créer ay emploi ça ñi soxla emploi fay yok tout parce que rythme bi mo bokk kenn waxul aussi doxul parce que nous ngi dox crise bi di ñëw parce que croissance économique bi amoon na euh, arrivé à régler beaucoup de problèmes

nit ñi di ko dund mu métti nam état bi def na aussi kem te lay kattanam crise bi dal na ci ñëpp dal na ci pays yëpp dal na ci eh, askan yëpp état bi aussi ni mu ci góorgóorlu ken nañ ne amul kenn ko def ba tax na eh, tey jii bu bu ñu wax sax ne des fois que eh, dafay am problème prise en charge man daf may xaw a parce que bu ñu gisee

problème comme résultat yi ñu am euh, parce que dañuy farlu communauté internationale bi taxaw ñëpp taxaw buñ ko defuloon tey jii euh, day gën a métti bon loolu tombé aussi ak crise judiciaire lañ koy wax politique et loolu c'est juste li ñuy wax euh, une goutte qui fait déborder le vase moo fi arrivé et nit ñi génn et masse populaire généralement bu amé risque yi moom bonjour les risques parce que masse populaire amul amul conscience amul mémoire amul mémoire lu mun a déborder base bi dafay yomb lenn la mënoon rek police taxaw gendarmerie taxaw ñu jankor ñu arrêté ko te loolu aussi mënoon na <laughs> mënoon na gën grave donc il fallait attendre mu mu jeex ñu xol yane solution la ñuy andi pour tranquilliser nit ñi nag te loolu moo am actuellement

Euh, boo buggee cere bu ñu la àndalee dugub <laughs> dugub bi du cere donc le temps que nga bojj soq wol mooñ tey am cere je pense que ci phase boobu lañ toll crise bi ñoo yokk ko loolu moo andi man situation noonu laa gis léegi nag bu ñu ci farloo ñëpp taxaw je pense que léegi tey ñu fàtte ko incha allah.